dellusiwaat nañ ci tafsir bi biiznillah tey noo ngi tàmbalee bopp suuratul muminuun baada audu billahi min alsheytaani alrajim qad aflaha almuminuun alladina hum fi salaatihim xaashicuun walladina hum an allagwi mucriduun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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الحمد لله رب العالمين سورة المؤمنون mooy saaru way gëm yi yàlla nañ ci yàlla boole suuratul mu'minuun makkiya la makka la wàccee mi ngi def cent dix-huit aaya saar wi mi ngi wàcc ginnaaw suuratul anbiya li tax ñu tuddee ko al mu'minuun mooy borom bi dafay wax melokaanu ñi gëm ñi gëm seen melokaan soo ko xoolee daanaka dina dem ci ay aaya yu tollook fukk ak benn li mu fiy wax nag képp kuy jullit dalay woo ci nga jéema a cuub sa bopp ci lii muy wax kon saar la woo xam ni <coughs> juróom ñaari melokaan yi mu indi ku ci nekk def ko mu nekk sa seetu sa biir néeg mu nekk sa takkandeer fooy jëm nekk sa wéeruwaay fooy toog ndax saar wii kat mbokk yi saar la woo xam ni day décrypter ni jullit bi wara mel ñii muy wax fii nag seen melokaan boo ko seetee moom mooy yoonu ajjana képp ku ko mel rekk amal yaakaar ci sa borom ne danga dem ajjana yal ko yàlla déggal ci ñépp moo tax bi yàllay wax saar wi waxul ni dana texe waaye dafa ni texe na texe na kan moo texe mu doog a ñëw ñi yore melokaan bi kon man ak yow suñu bëggee texe nanu fexe jël saar wi dëpp ci suñu bopp ñu xool ko moo tax borom bi ne xad ca dëgg dëgg dëgg aflaha texe na mu mel ni dañ ko ni borom bi ana kan moo texe mu ne almuminuuna way gëm ya mooy ñi yàlla topp yàlla déggal yàlla jëfee ndigalal yàlla bàyyi ay tereem ñooñu ca dëgg dëgg texe nañ qad aflaha almuminuun ñu ne yàlla ñooñu texe ñan la ndax ñu jéem a mel ni ñoom noonu la saxaaba yi doon dundee suñu leen waxee ku baax dañuy fexe jéem koo topp waaye duñ fa nekk rek naan est mooy waaja est-ce que mooy waaja rek dimbalawul kenn da ngay fexe mel ni waaja fa waaja jaar nga jéem faa jaar waaye est-ce rek du moroomu gaa yi mooy ngande mooy nangam taxut ñuy wax kon dangay roy fa gaañ jaaroon ndax nga am li ñu am mbaa nga raw leen noona ngay def te loolu saxaaba yi sàdd nañ ci ay misaal ci ay ndaw ak i mag ñu ne yàlla ñi nga ne dañoo texe ñan la mun a jàppal sa baaraam benn mu ne allazina ñooy ñi nga xam ni hum ñoom fii solaatihim ca seen biir julli xaashicuuna waaye toroxlu lañ ñooñu bu ñuy julli ci biir julli ga dañu caa toroxlu bu nu kàbbaree di julli seen xol yàlla lañu koy delloo seen xel yàlla lañu koy delloo kon la shakk seen cër day dellu ci yàlla kon alladina hum fi salaatihim xaashi'uun dëgg-dëgg qad faazu wa saidu wa xasalu ala alfalah melokaan bu njëkk bii nag bokk na ci la ñuy xàmmee jullit mooy di julli lu waay def ci diine ji lu dul julle gëm yàlla jullee gën ndax julli moom lañuy ñuy examiner pas-pas bi su pas-pas bi leeree baax julli gi leer baax su pas-pas bi yàqoo boo julli woon ba démb bi daawit julli gi du baax kon alladina hum fi salaatihim xaashiun mu mel ni julli lu itteel yàlla la bu lay wan jullit julli la lay wax ba mu ne fale wa ibaadu rahmaan ba mu jeex lu mu ca teg alladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama kon mbokk munoo baax ba ñu waxal la mbaax te doo julli ku ne daa baax te doo julli naa fekk buy làqatu la képp ku ne diw dafa baax te du julli naa fekk buy làqatu la ki baax il faut muy julli ndax mbaaxuk aji mbaax ñu ngi koy xamee ci li yàlla santaane kon il faut ngay julli boo dee góor boo dee jigéen kon julli dañu koy toppatoo abdullah ibnu umar bi mu rombee yaa aysa ak yonante bi ñu toog di waxtaan abdullah ibnu umar romb yonante bi ne nicma rajul abdullah ibnu umar kii ak a baax law kaanu yusalli billayl yonente bi nag xale bi ni mu baaxee cëy bu doon julli guddi mooy bu doon naafila yaa Aysa dégg loolu wala yaa Xafsa ñu baal ma dégg lu daw woolu abdallah mu ñëw ndax frère la mu ne ko yonent bi nee na kenn gënu la boo doon naafila guddi keroog communication boobu ba mu àggee ci ibnu umar ba bi muy génn àdduna bàyyiwul jaamu yàlla guddi natt ci sa bopp xool ci sa bopp ci biir néeg bi su portable bi tegee télé bi tàkk mbir yi bëri ndax danga leen fa ba julli wala boo baree boo paree ca yee da julli xool ci sa bopp jàngat ko benn critère a ngoog alladina hum fi salaatihim xaashi'un ñu ne waaw yàlla ñaareelu melokaan bi dañoo bëgg mu gën a am précision borom bi ne walladina <coughs> ñooñee texe ginnaaw seen julli ragal ca yàlla mooy ña nga xam ne kat anil laghwi ca mboosóor ya muridun way sori lañ ko du ñu nekk ay comédien du ñu créer pour nit ñi di ree du ñu nekk tëggkat ak fecckat ak caaxaan ndax lijjanti àjjana da leen doy caaxaan ci àdduna lijjanti àjjana da leen doy ay caaxaan moo tax ñoom anil laghwi muridun suñu rombee mboosóor dañuy jéggi bu dee ci mbedd dañuy jàll bu dee seeni kër dañuy génn ndax bëgguñu lu njaxasa seen ngëm yàlla ba dara di ko yàq moo tax fu ñu romb sabar musique caaxaan dañu koy sànni bis boo gisee nag ku la ni man jaamu ko ti yàlla la waaye mu ñu ma muñ musique nee ko yaa ngi feebar fajoogoo danga ngaa waaye bis boo demee ba nga yëg ni ñi texe mooy ñi moytu caaxaan kon da nga sànni fële caaxaan yooyu walladina hum ani lagwi muridun jigéen ci la bokk góor ci la bokk moytu ko ci sa téléphone di seetaan porno di seetaan film yoo xam ni ña nga cay seetaan seen yaram ca biti la nekk di seetaan yu di déglu lu bon di wax lu bon di def lu bon kon kat anil laxwi moom bokkoo ci muridun kon caaxaan danga nga koy jël jël mooy jéggi ñu ne waaw yàlla ñaari jikko yi de leer na kon carte bi daal mooy aji julli rafetal julli ga sellal ko liñ koy xamee ñaareel ba mooy koo xam ni mboosóor da koy romb <coughs> du ko téye ñu ne yàlla ak kan mun a ñetteelu melokaan bi walla hum ak it ña nga xam ne kat ñoom na way def lañ li zakat ñoom day azaka dañu koy génne bu ñu ko amee suñu bayee dañuy génne azaka bu ñu yoree ak jur dañuy génne azaka suñu amee alal dañuy génne azaka kon ñoom xam nañ ni ndeke génne azaka dafa war ci seen alal bu ñu nekkee commerçant bu ñu nekkee boroom xaalis kiy génne azaka nag du jël alal di ko fooye wala di ko caaxaan alal bu lew moom la ñuy génneel azaka azaka nag dafa nekk nama un wa ziyaada day màggal li nga am di ko yokk di ko barkeel kon yow mi may dégg te am ay compte bancaire waaye waaye del gestu say compte bancaire di ca génne azaka su jotee loola mooy wareefu jullit boo yoree ak jur dee ca génne azaka soo bayee asab tool dee ca génne azaka walladina hum lizakati faailun kii génne azaka di joxe nag dana àgg ba ci poosam su séenee ku jaaxle mu dimbale ko walladina hum lizakati faailun bis boo fi dajalee alal xañ ko yàlla yàlla dalay seetaan ba mu bari mu xañ la ko te doo ci mën dara ñu ne waaw yàlla ñett a ngoog de mu ne ñëw leen ma waxal leen ñeenteel bi ñu ne ko waaw mu ne lu metti la nag waaye moom mooy leeral ngëm ak jullit mu mel ni dañ ko ne yàlla loolu nga ne dafa metti daal mooy lan mu ne wallazina ak ñi nga xam ne hum ñoom xaafiduuna way sàmm lañ li furujihim seen pëy a mbira ngóog ñooñee dem ajjana ba pare ñoom dañuy sàmm seeni pëy pëy nag mooy awra góor ak jigéen maanaam ñoom danañu góor góorlu ba duñu njaaloo moo xam njaalooy dëgg ak waajal njaaloo wala nara njaaloo njaaloo nag waajal njaaloo bokk na ci bët bët di xool jullit feeg demul ba tàggat bëtëm ba lu bëtam nar a xool lu xaraam mu sànni ko kooku defe na ndax kat borom bi dafa ni yonent bi wa qul lil mu'minin yaxuddu min absaari mu teg fa wa yaxfadu furujahum nañu sàjj seen xef sàmm seen pay mbokk ñaari wax ngoog yu laaj dégg la lan moo tax borom bi ne nañu sàmm seen pay ginnaaw bu ñu xefee caabil pay bët la dégg ngeen wolof boobu pëy fa mu làqu bët mooy caabeem yàlla xam na ko bis boo sàjjee sa xef rek nga noppalu waaye boo nee sa bët bi dàng lu ne nii nga nit fàng jàkkaarloog moom boo defoon dànk ci njaaloo nga jëm parce que saa boo xoolee da koy transféré xol bi su xol bi kontaanee transféré ko cerveau bi cerveau bi transféré ko siddit yi noo def sa siddit jóg moo tax boo xoolee lu xaraama xool rek nga yëg sa bopp loolu góor ñépp a ci yem wa jigéen moo tax ñu ne góor ak jigéen nañu sàjj seen xef képp ku bugg a mucc mbokk sa xef kii naa quoi ko sàmm waaye lii sàmm sa pëy mooy sa xool bul nekk mukk saay-caay buy taawil déedéet moytul jigéen poson la ci ku nar doon nitu yàlla moytu ko obstacle yi yàqal nitu yàlla yi ci ëpp jigéen la képp ku bëgg sa yoon baarewu defal jigéen sa bopp bi bis boo ko ci defee mooy yëgal ni boo naroon a réussir yaa ngi jaar ci yoonu daanu xoole boobu nag <coughs> góor ak jigéen a ko bokk de kenn génnu ci sans exception kenn génnu ci malheureusement ñun nag am na ñeen nat ñeen nat laa wax waxuma ñëpp généralisé wu ma ci ñuy muuru rawatina ñuy niqaab nañ leen waxaat nañu ragal yàlla ci xam charte yi aju ci niqaab lu diis la waaye lu ko gën amul nit buy def dara bëgg koo réussir dafa war a xam charte yi waxuñ la yow mii niqaab nga muur sa kanam bu ñu la xool su doon loolu mu yomb waaye dañ la ni yow bu ñu la xool waaye bul xool nga nag jël sa niqaab dóor ba mu jeex yore see bët fel fel fu ne nga yónni fu ne nga yóbbante ah loolu nag du niqaab ah du niqaab de ñu baal ma nag dégg nga suñuy mbokk ngeen wax dëgg yàlla mais du dara orientation la rek ñun ñëpp ñun ñoo bokk mbir ma wax dëgg yàlla nag dañuy fóotante di sangante nag waaye mënoo sol sa niqaab ba pare te xam ngeen ni mbokk yi niqaab pour làq taar la woon waaye léegi mooy génne taar de xale yi góor yii bu leen borom niqaab rombee dañuy xool bu bëgg daan waxa ñu ne non niqaab dafa nice quoi fekk xol yi ñoo feebar waaw waaw xol yi ñoo feebar loolu nañu ko sàmm kon jigéen ji niqaab nañu ko bàyyiloo xel ni waroo xool yonant bi sallallahu alayhi wa bi ko ibnu abbas di wommatal gëleemam bi ibnu abbas di wommatal yonent bi gëleemam jigéen ñaa nga taxaw moom ci jigéen ju yéeme li ñuy almaratul xasna jigéen ju rafet ba jéggi dayo ibnu abbas ne nii di ko xoore yonent bi wañaar bopp ibnu abbas jubbanti ko gis nga ko de ko wëlbati ko da wan ni nit dañu koy dimbale léeg-léeg nit di xool ba portable daanu na na ragal yàlla bët bët dafa doy waar waaw kon nag sàmmal bët bi yow góor kazalika yow jigéen ni mu araamee ci góor mu xool la dafa di nag étincelle yi nekk ci jigéen moo gën a grave yi nekk ci góor ndax jigéen étincelle yi nekk ci moom mooy jëmmam foo ko xoolee boo defut ndànk rek seytaane commencé travail waaye jigéen mën naa xool góor jigéen la muy seetlu ci góor moom rek moo ko xam waaye mën naa cee wax ñett moom jaaxal na jigéen góor gu set wecc seytaane jigéen la góor gu set wecc góor gu am jëmm te ragal yàlla seytaane jigéen la moo tax xale yu góor yi ni ñu sonn ci salle gymnastique yi di entraîné rek di yëkkati foog nañ jigéen moom biceps yi lay xool yooyu quoi sol sa body di dëngalu di dox nii jigéen kenn jaaxalu ko lu dul jaamukatu yàlla bu set noo mel boo dul jaamukatu yàlla bu set pour jigéen xool na bëgg la du yomb moo tax imratu aziz bi mu gisee yuusuf nu mu def bëgg a dee te du moom rek feebar bi ci kër gi yëpp la woon naa ah, jaam ñi ci kër gi ñëpp amoon problème mais lan moo tax mooy taar gi nekk ci jaamu yàlla newul ci leneen waaw moo tax yàlla de leen may li ñuy tuddee kashfu kon góor nañu xool borom bi nee na walladina hum li furujihim xaafidun ñee nga xam ni dañuy sàmm seeni pëy bépp ndaw su bëgg a mucc maa ngi lay woo yow ndaw li ne la yalamu anna dunya àdduna mi kër guy jeex la de moytu leen bakkan ak i bànneexam leen xale yu góor yi moytu leen bakkan ak i bànneexam lam bi àdduna ña sa sëggoon ji bëri ña ca nekkoon ndaw te rëcc bëriwul de soo bëggee mucc moytul bànneexu bakkan moo tax yonent bi ne shababak qabla haramik yow xale bu góor bii mbaa bu jigéen bii sàmmal sag ndaw balaa ngay màggat bëri na mag ñoo xam ne mënuñoo bàyyi lu bon parce que dañ ko tàmmoon ci ndaw kon ndaw danga koy fiire waaye léegi li xew suñu réew plage yi lomotif yi xale yu ndaw léeg nga dégg ñu ne diw de yar nañ ko fañ ko war a yaree déedéet loolu yàqu la dañoo war a wax ne yar nañ ko ni ñu ko war a yare ni ñu ko war a yare mooy njub waaye fañ ko war a yaree loolu tekkiwul njub al imam bafri day wax ni maa ataala abdun il amala illa asa al amal nee képp koo xam ni guddal nga sa mébét sa jëf yàqu mooy ndaw loo xam ne dafa jàpp ni dina màgg ba nekk paa loo ko ne bàyyi ma ne non garaawul man léegi ma tuub quoi léegi ma changé nekk fa di taswif rek wóorul de ñaata ci ndaw ñoo génn àdduna yow ndaw lii maa ngi lay fàttali nii su yàlla ànd ak yow looy ragal ci kii la contre su yàlla ànd ak yow jarul ngay ragal ki bañ a ànd ak yow ndax ku yàlla àndal aar la yàlla ku mu àndal aar la su la yàlla bëggee dana def nit ñi ñu bëgg la te duñ ci mun dara kon fexeel am mbëggee la ak yàlla am mbëggeel ak yàlla nag li la koy may mooy nga góorgóorlu bali yàlla bëgg nga ne ca adduna bi ñuy dund ñett jaaxle nañ ñett ngi nii ñu jaaxle lañ lool nga ne ma kan jullit bu gëm yàlla bëgg yonent bi nekk ndaw ku jaaxle la dafay dund ci jamono boo xam ni fitna yeeg ixraat yi daa bari lool ñaareel bi ci ñi jaaxle mooy gor gu dëggu nga nekk gor ba pare dëggu jaaxle nga ndax bis bu nekk li lay wër mooy lu lay loo lu lay def loolu bon lu lay jaayloo sa ngor rek ñoo lay wër ñetteel bi ak kan boroom askan wu rëy te buggul gàcce soo bokkee ci askan wu rëy te ragal gàcce fitna ñëw na ñetti ñii ñu jaaxle lañ ñii dund ci àdduna te tedd fi lool ñetti ñii danañu wër ba sonn lu ne danañ ko ut waaye teeyal yow mi bëgg a dund ñetti yële ñetti yi kan ak kan la munaafiqun la du dul lisaan naafiq bu ñaw làmmiñ tey ñoom ngay gis ñoo ne ci géew politique bi ñoo ne ci xew-xew yi foo toll ñoom ngay dégg seen kàddu ay naafiq piir lañ gëmuñu dara lu dul alalu àdduna ñaareel bi saay-saay buy wor baaxul ci dund jullit loola moo ñu jàpp ba kenn wóolutul kenn loo séq ak nit soo deful ndànk mu war la dafa mel ni ngor ak gore def fee jóge ñetteel bi mooy ceddo bu ñuul kukk kooku àdduna rekk lay wër ñii nag li leen lor mooy lan mooy dañoo jëndee naajub àdduna naajub bëccëg lañu ñu jëndee keral guddi gis nga bëccëg su naajee nga ñàkk yàkkamti jaru ko xaaral sa yàkkamti mënta tax waxtu yi dem mënta tax minute yi dem guddee ngi ñëw loo ñàkk-ñàkk bu timis jotee ñàkk bi tàmbalee jeex waaw ndax képp ku lay jaay ker di ko seeral xaaral ba 6 nga waxaale ak moom waxtu waxtu gi lu ñu koy tuddee waxtu lambale la waaw ki lay jaay ker di ko seeral noppalul ba tàkkusaan su dee vingt mille la ko doon jaayee ci suba si boo ñëwee tàkkusaan mu ne la indil 300 ma jaay la ko ndax xam na ne la mu doon bàkkoo sa kanam day waaj jeex àdduna noonu la mel ku la koy jaay toogal di ko seetaan bis dina ñëw mu ànd ak àdduna far jaay boppam mbokk yi ndaw ñi maa ngi dégg sam bopp di dénk bul ut ndimbal ci kudul yàlla sa ndimbal kenn yoru ko kudul yàlla kon dénkal yàlla sa bopp dëggul ci dénk ba nga ko dénk sa bopp te nga yëg ni ku dénk yàlla sa bopp dana la sang comme ni ñuy sange or demal ci tëgg ba nga xool ni ñuy sangee or boo ko seetloo nga war a xam ne àdduna dara yomb fii or buy ñëw day ñuul kukk bu ñu bëggee mu xees rafet dañu koy dugal ci ndox mu safara soo xamante ni daanaka dana tolloog trois cent nangam degré di upp nag muy baax lan lañu bëgg tilim gi dañ su jógee ci ñuulaay boobu ba commencé xonq xees ñu defar ko ba mu rafet dañu koy sàngee këyit bu rafet oyof lool dugal ko ci boîte bu rafet lool dugal ko ci kees bu rafet lool di ko jaay prix bu cher yow ndaw boo bëggee seer ci sa borom jàppal ni man ak or bi ñun ñoo yem kon bul sàkku ndimbal ci kenn yàlla yore borom ndimbal foo jaaxlee ñaari rakkaa mu ngi sa kanam laa xaw wala quwwata illa billah mi ngi sa kanam jullil yàlla te ñaan mi ngi ci sa kanam muñ dogal yàlla yi mi ngi ci sa kanam na nga xam ni njëriñ ak lor kenn mënalu ko kenn mënulaa jëriñ kenn mënulaa lor ku dul yàlla moo tax yonante bi ba muy yar ndaw la daf ko ni waalam anna al ummata law ijtamaat ala an yanfauka bi cheyin ma nafauka illa bi cheyin qad katabahu llahu lak waalam anna al ummata law ijtamaat ala an yadurruuka lam yadurruuka illa bi cheyin qad katabahu llahu lak rufiat al aqlaam wa jaffat as-suhuf ban formation moo gën a bii yonent bi xool ndaw lu toll ni yow ne ko kaay ma wax la sàmmal yàlla ihfazillaaha yahfazka ndaw day sàmm yàlla nan ngay sàmmee yàlla su waxtu jotee duggal ci jàkka yàlla yi su jaamu yàlla jotee defal sa jaamu yàlla su liggéey jotee liggéeyal ba mel ni kuy bëgg a dee gor day nangoo ñaq day nangoo liggéey day daw tuuma day bañ tuuma ndaw lu bëgg a tekki yàlla xam na ko doo yàccaaral il faut nga dëgër lool pour nga mën a tekki sa njëriñ kenn mënu koo defal ku dul yàlla moo tax yonent bi ne ndaw li adduna bi yépp suñu dajaloo woon pour lor la wallahi munuñ laa lor lu dul yàlla dogal munuñ ko munuñ laa lor lu dul yàlla dogal kon suñu dajaloo woon jéem dara mu ñëw ci yow jàppal ni ñoom dañoo jéem mais yàlla moo àggale ren di ginaar sax boo yoroon sa paaka tiim ko pour mu dagg yàlla koy dogal fu ko dogalul du sotti waaye jàppal ni ki la bëgg mënu laa jëriñe jëriñ lu dul lu yàlla bëgg ñu jëriñee la ko loolu boo ko xamee mbokk yow ndaw ana lan mooy sa problème xanaa xamoo ni gor jullit ndaw waay waay bul jaay sa ngor bu ko jaay mukk mukk mukk waaye bul jaay sa personnalité jamono bii dafa bëri ñu jaay seen ngor jaay seen personnalité alal day jeex de waaye personnalité day des kon boo jaayee sa ngor su alal ba jeexee boo génnee kan ngay waxal ñépp dañu lay dummóoyu moo tax ndaw moytul moytul luy taasal sa dund nanga ko moytu dawal luy taasal sa dund lépp luy taasal sa dund taab la bu nekk ci sa jë mën naa wér waaye cicatrice ba du deñ ku la xool dana xam ni ah kii kat taaboon na lan moo waral taab bi moo tax ndaw dangay fexe bul jaay sa ngor mukk wala ngay jaay sa personnalité fexeel ba na nga rafetal sa jëf say jëf rafetal ko te yàlla tax rafetal ko ngir ñi ngay dundal ndax rafetal jëf mooy poñatam àdduna ak poñetal allaaxira moo tax borom bi ne góor góorlu leen xalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kon mbokk rafetalal sa jëf yàlla jëf bu rafet lay jël rafetalal sa jëf rafetalal sa jikko rafetalal sa doxin rafetalal sa waxin ndaw nga bis bu sa doxin rafetee sa waxin rafet sa jëfin rafet yàlla da lay yëkkati ba ci kaw ñépp di la ku nekk naan ma nga ne ku bëgg a àgg il faut mu jaar fi nga jaar kon kat fexeel mbokk nga rafetal képp kuy rafetal nag mooy kiy suur dee moo tax borom bi ne xalaqal mawta wal xayaata dafa bind dee avant dund kon war ngaa xam ni da ngay jéggi dee pour dund pour retourner waat dee kon day yomb yow yaa jéggi dee pour dund kon bi nga dundee retour pour deewaat dafay yomb waaye gis nga loola ngay deewaat bu mu la tiital ndax ginnaaw dee dund bu dul jeex moo fa am ginnaaw dee dund bu dul jeex moo fa am ginnaaw dee wërsëgu ba faw moo fa am ginnaaw dee amul feebar ginnaaw dee amul sonn ginnaaw dee amul ñàkk ginnaaw dee amul sax jafe-jafe bànneex yooyu moo tax yàlla jële la ci dee indi la ci dund formé la ba nga xam ne lii mooy dee xam nga ne weesuwul dee nga nekk ci sa biiru yaay banku ba mel noo xamante ni bis boo juddoo yaram bi yëpp day metti bu buñ la dàmpul doom jàmm loolu daanaka dee la kon soo dekkee di dund bul jàpp ne lii dafa sax éternelul saxul yàggul bisa ngi ñëw bu ñu yuuxoondoo ni dee nga nga dem ci borom bi keroog da nga sant yàlla nañu yàlla nangul suñuy def xamal ni nag li tax jëf ju rafet baax suuf suuf mbokk yi mooy bàmmeel bàmmeel lu day waar la mën naa lekk yaram de mën naa lekk yàpp mën naa lekk yax waaye du lekk jëf <laughs> du lekk bàmmeel mën naa lekk yax mën naa lekk yàpp mën ngaa fënax waaye jëf yi du yàqu ana ñi fi defoon lu baax ba tey ndax fàtte nañ ko ñi fi defoon lu bon nag kon histoire toujours nit ki da koy bind nga tànn nag sa main ngay bindee histoire walla sa main maa ngi lay dénk góor góorlu ba sa main droite na bind sa histoire nga emprunté sa baaraam ci histoire incha allah say sët bu ñu ñëwee ëllëg dinañ xam ni seen maam fii la jaaroon dafa xeex ba am li mu am moo tax ñi fi am lu baax ñépp dañoo sonn ñi fi am lu baax ñépp dañoo sonn kon soo bëggee lu baax mënoo yàccaaral am lu baax mbokk il faut nga sonn pour nga gérer sa ngëm jamono bi ñu toll sa ngëm taxaw sonn moo lay dimbale pour nga sàmm sa ngëm il faut nga fexe ba doo torox ci kanamu mbindeef comme yow soo ko defee rek yàlla mën na laa dimbale am na ñu bari nag li leen sonal mooy sàkku àdduna gis nga kii sàkku àdduna di ko dàq dafa mel ni rek ka day yadayhi ilal ma li yabluga faa mooy ki tàllal loxoom dugal ci biir ndox ngir naan bu dugalee génn du fa fekk dara wa ma huwa bi baaligi gis nga kii ut àdduna day tabax di teg di ut di teg ndeke yoo tabaxam ba xam nga lu muy noonu kamasali baytil ankabut waaw àdduna da ngay jël tabax tabax tabax tabax defar ba mu jekk soo duggee terrasse nga clim nga làmp nga def nga lépp waaye ci biir tàngoor dana la fekk te doo ci mun daal kon yëgal ni li ngay tabax bu dul alaaxira tabax bi yépp kamasali baytil ankabut day mel ni rekk néegu xorondom te néegu euh, jargoñ te dund yëpp dund jargoñ a gën a metti mbokk bul dund comme dund jargoñ jargoñ rekk muy dund rey moroomam ngir tekkil moroomam foofu nag la ñuy wax ji rey moroomam ngir tekki moroomam jargoñ doo nga koy dundee te jamono bi tey loolu lañuy dund tey nit bañul dégg ci yow lu bon siiwal ko ana dal ana teey ana xalaat tey luñ ne lu bon la rek ku ne pare nga pour mu siiw xanaa danga fàtte ni bu doon yow buggoo ñu defal la ñi ma gën a jaaxal nag mooy ñiy dund diine di siiwal mbir yi bon mbokk yi lu bon kenn du ko siiwal lu bon comme jalu muus ni ko muus jalee nañ ko fa bàyyi boo jamee sa baaram rek mu xeeñ kon baal noonu ndax li nga bëgg mu nëbbu nëbbal ko sa moroom bis boo génnee sa secret moroom yàlla nee na dana génne say secret fi may jeexalee mooy kàttan ngir mu jëriñ borom day ànd lewet dégg olof kàttan ngir mu jëriñ borom lewet moo koy rafetal waaye kàttan bis bu ko iñaan ak soxor lale alkaande lay jural boroom moo tax boroom bi taala wa tabaarak ne walla walladina hum li furujihim xaafiduun ay ndaw a ngi nii ci góor ak jigéen góor-góorlu lañ ba sàmm seen pay sàmm sa pay mooy sag wi gën a rëy ci góor waaye mooy wi gën a rëy ci jigéen bépp jigéen buy jaagar-jaagar ci biir ëttam te kenn yabu ko daa sàmm payam sàmm boppam kooku ñeme naa taxaw jàkkaarloog àdduna ne maa ngi nii waaye jigéen bi foyee boppam kooku nu muy def sëmm lay def sëgg fu nit ñi toogee mu sëgg góor gi it noonu kon sàmmul sàmmal sa bopp sàmmal sa pays pour nga am li yàlla bëgg ci yow dëgg dëgg dëgg dëgg wala nga am li nga bëgg ci yàlla mooy fexeel ba liy yàqal doomu aadama ñaar la yonent bi sallallahu alayhi wa nee na képp ku ma sàmmal li temparee sa bopp ba ci say sikkim li déparee sa jumbax ba ci say tànk incha allah ma jàppale la ci sa kanam gorom ba nga dem àjjana kon lan moo nekk ci diggante bopp ak sikkim ñetti mbir a fa nekk yu doy waar bu ci nekk bunt la pour dem safara mooy bët mbokk sàmmal sa bët ba bul xool lu xaraam làmmiñ sàmmal sa làmmiñ ba bul wax lu sa yoon nekkul nopp sàmmal say nopp ba bul déglu lu xaraam diggante jumbax beeg tànk yi leen doo nga fa nekk muy pëy pëy nag ku mu tax a dund ci gàcce nga nar a dee pays ku mu tax a def la mu bëgg ci gàcce nga jëm li pays bëgg saa boo ko ca fekkee danga torox ci pénc ma te kenn dootu la mën a sang moo tax sa pays da nga koy tënk ngir borom bi xaar li la borom bi wërsëgalee nga am ko moo tax ma ne walladina hum ñeenteel bi mooy ñi nga xamante ci kat ñoom xaafiduuna way sàmm lañ li furujihim seeni pays yàlla loolu de lu ñu yaatal la loolu mu ne illa ala azwaajihima xanaa seeni jabar seeni jabar day ak seeni jëkkër moom wax dëgg yàlla nag man yàlla maa leen ko daganal kon ba ñuy wax sàmm pay jëkkër ak jabar taxuñu woon kon ñoom dañoo génn ci sujet booba ki ñuy waxal mu sàmm pay mooy ki amagul soxna walla ki am soxna ak keneen am nga soxna loolee nar laa yóbbu ci keneen am nga soxna yemal ci moom waaye bis bu la goree di jàppee boo moytu gàcc ngay am àdduna ak gàcc àllaaxira yàlla nañ ci yàlla musal moo tax mu ne illaa ala azwaajihim danañu sàmm seen pëy ah xanaa seeni jabar rek def ca aw maa malakat wala la moom ne ko ay maanum seeni ndeyjoor mooy jaam ya nga xamante ni am nañ ko borom bi nee na sàmm pëy diggante jabar ak jëkkër nee na ni bu taxa képp koo xamante ni fàggu na wara a ginnaaw sa jabar wala sa jëkkër wala sa jaam fa ulaika ñooñee jëf loolee humul aaduun ñooy noon dëgg xam nga noonu gan lañ noonu yàlla déedéet waaye noonu seen bopp lañ bàyyi fi sa jabar dem ca beneen jigéen dem ci jigéen joo takkagul jot naa moytu ci ñetti mbir yàlla may na la soxna góor ñëpp nag a yem jigéen ñi maa ngi leen koy waxal bu ñu ñëwee góor ñëpp yem waxin la bépp góor bu takk jabar bëtam jël na aawam jigéen bi yeboloon ngeen sóor ko lu ngeen gis ngeen loolu feebaru góor la mënu leen koo faj waaw ki gën tële néew doole bu takkee tey suba bu ñuy waxtaan non booy ñaareel la ah. vraiment temps yi war na ñaareel quoi loolu bind la bu nekk ci góor su la taxee di xuloo waxtu wu nekk coono ñëw na kon góor gi yàlla may la jabar góor góor lul ba la nga mën ci ngor nga téye ko képp kuy ut jabar te utoo ko ci ni ko yonante bi santaanee taribat yadaaka ji moom mi ngi suñu kanam ñun ñëpp ñuy xool yàlla xam na ko ni jabar boo fi takk lu mu taaru taaru lu mu rafet rafet nu mu mënti mel te amul diine amul ragal yàlla du jabar àndandoo la àndandoo nag làmbi golo la rek ku tëb daanu waaw loolu la de àndandoo la de waaye yow jigéen boo fiy ut jëkkër nga jéggi fi borom jikko ju rafet ak jaamu yàlla islaam amoo jëkkër àndandoo nga am kon loolu ku nekk war na koo xam moo tax borom bi nee na illaa ala azwaajihim aw ma malakat aymaanuhum fa man ibtaga waraa dalik képp ku fàggu ginnaaw sa jabar beneen jigéen ku doy waar nga ku fàggu ginnaaw sa jëkkër beneen góor ku doy waar nga borom bi nee na wallazina juróomeel beeg juróom benneel bi mooy ñi nga xam ni kat hum ñoom raauuna way sàmm nañ li amaanaatim seeni kóllëre wa ahdihim ak seeni dige jullit day sàmm digeem day sàmm kóllëreem soo digee walla nga joxe rendez-vous respecté ko allahuma lu dul ngant am moo tax mu ne wallazina hum bokk na ca ñay dem àjjana ca texe ña nga xam ne kat ñoom li amaanaatim seen kóllëre ya wa ahdihim ak seen dige ya nee na raaxuuna way sàmm lanu ko léegi nag mu daldi ñëwaat ca la am solo la mu indi woon mooy ban bi mu nee julli ñi texe nag lan la ci teg li mu ci teg mooy julli ñiy rafetal julli ga di ko sellal ñu ne waaw bi mu demee bay jeexal lan la ci teg walladina hum ala salawatihim yuxaafiduun nee na ñay dem àjjana fii waxul salaatihim de seetlul première bi alladina hum fii salaatihim mu def ko singulier fii mu ñëw ne walladina hum ala salawatihim mu def ko pluriel lan moo tax mu wax loolu parce que julli juróom la waxuña nga sàmm fajar rek parce que ñu bari seen julli fajar daa fekk ñuy liggéeyi rek xam nga ne moos société ba Dakar ngay liggéeyee huit heures pile da fay fekk noo def quatre nga jóg boo fi naafilaak boo fi jullee ay rakkaak taxul nga nekk jàmbar jàmbaar ji ñu ngi koy xam jour ba nga liggéeyewul dimanche ak yu demee na ci la ñu xam ndax jàmbaar nga déet gaa yu bëri dañuy julli waxtu bi yëpp mais ni ñuy feetoo dimanche la ñuy feetoo julli fajar <laughs> te borom subhaanahu wa taala lan la wax julli juróom waaw seeni juróomi julli ngeen sàmm ko mbokk loolu yomb na yàlla nañ ko yàlla yombalal fexe ba sàmm waxtu wi juróom ne walladina ak ñi nga xam ne hum ñoom ala salawaatim ci seen julli ya borom bi ne yu xaafiduuna dañu koy sàmm yàlla nañu yàlla may ñu mën a sàmm julli ci waxtu ya ci heure ya <coughs> ci préparé ya ñu ne yàlla waaw ñii nga wax ci juróom-ñaari jikko yi ñoom luy seen fay mu ne ulaayika ñii ma la jox seen melokaan ñii ñu ne yàlla mooy ñan mu ne hum ñoom alwaarisuuna ñoom ñooy way donn ya yàlla lan la ñuy donn mu ne alladina mooy ña nga xam ne yarisuuna al firdawsa danañu donn ajjana jooju ñu naan firdaws hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ca ajjana ya dafa mel ni waxtu wi dafa dafa jot incha ñu tënk ko foofu ba darsi bii di ñëw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.